li tax munuma baña wax ki nga xamne mo fu dajale tay di baye Cheikh Amadou Tidiane Seck moo topp sama yaay sama yaay namp jox mo moo ba mu juro ba legi bima nekké tout tank ba ma xamé ko sama loxo ci am juroom ñaaraat ba legi si moy xay yow ni musuma nekk ci loxay kenn ku dul Baye Cheikh kenn musuma yilif ku dul Baye Cheikh Baye Cheikh xama yor moom ma yar moom a jàngal danaa def benn seede tey nag tey seede jot na Baye Abdourahim Seck mii waxuma rek waruma wax sax Baye Abdourahim waaye cana ba ñëpp dañuy wax Baye Abdourahim Baye Seck yàlla ñaaw man bañ man Baye Seck laa daan wax man dama ne sama nijaay ji toog di sama nijaay Abdourahim Seck maag moom ñun ñaar ñii Baye Seck nu yoroon nun fu nu ne fu nu masa ne noog Baye Seck noo fa nekk muy caba di cuuti fu mu mës a nekk laax bay seet ak seigne ibrahim mi ak seigne Assane mi noo fa nekkoon ñu ñu ñu nekkoon samay mag nak doon samay nijaay doon samay kilifa way bay seex nu yoro mu keroog ko bay seex di ci na ba gusaas di laxas ni ya damay ya jangi ma ngi tëdd sama ginnaawu yaay katra du matay ci lima ma man la ñëw sama ginnaawu yaay yóotu ma ma ba romb sama yaay mu no solo say dal solo ma samay mu jox ma basang ma and ak mom ak satala ma ande ak ñu dox ba Gossas ba mën na dox ci na ba Gossas ba Gossas ñu dem ba ci digg all bi yalla rek la koy sédé mi ngi nii toog mu ni ma al asim damay moom canaba ma dama war yilf yëlif canaba comme damaa war a jàng booba lu dama war yilf yëlif barke al xam xam moom lu lo wax na ma rek mais gune du faté gune du faté ma ànd ak dem duggu saxar dem wacc Kaolack ci garu Kaolack nu dox fa fa ba ba ba ba pont noiro fa la ñu xaare oto dugg fa dem wàcc mbos ma mbos mais ngeen dem mbos la génn ma ci gannaaw ñor daf def def nañ fa ñaareel mu jàng alxuraan ni day tari alxuraan fa la mokkale alxuraan ni ma léegi damay dem di wàjjur xulle bàyyi jibi seen toppal ma sama alxuraan ma ànd ak moom di ñëw foofu ba may dem foofu ma moom man rek la amoon bi mu ñëwee wàjjur xulle man doomu la amoon man rek maa fa nekkoon kon ab taalibe bi kon kooku moo ma yar lu ma xam ci alxuraan moo ko lu ma xam ci xam-xam lu mën a doon bu dee waaw bu dee diit lu mën a doon moo ko jàng yar ma nag dénk ma bu ne yi xale yëpp sama kanam lañ juddoo mbooleem koo xam ne kii doomu sëñ taala xaar nga mun naa wax sax mbooleem ko fi sant fi sant sekk nii burul ñetti ñii toog ñeent ñetti ñii wala ñeent ñetti ñii toog mbooleem ko fi sant sekk maanaam da ngeen jàng bu xale yi nag nee nañ ñi nga xamante ni bàyyi Cheikh Ahmed Tidiane Seck moo leen jur jur mu commencé ci man ma yor seen kàddu. incha allah ci barke alxuraanul karim ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Baye Abdourahim Seck mii lépp lu mu jox na loolu moom topp ci ginnaaw lu mu wax loolu lu mu wax loolu ni def. lu mu tere danañ ko bàyyi daay dërëm yaay xalifa général canab topp nañ sa gannaaw mu sa jarbaat man sa jarbaat la xale yi suñu doom la ñu topp sa gannaaw yal na yàlla guddal sa fan yokku sa fan yal na yokku sa leer fukki ak ak ndàngam ci xalaaf loo xamul woon jërul kenn di na koo ñetti garab yi ko sama borom yàlla jox yemmul ci benn kilif benn xalifa yi fi paase sët la ci Seydina Limaamul Mahdi xadi baa ko jur xadi alfaa ko jur ma defee ni daal kii ab xalifa man de ni tey jii nag. ki nga xamante ni tey jii. moom la ñu yàlla dénk. moom la ñu yàlla dénk. muy Baye Abdourahim. muy Baye Serigne Abdourahim. yàlla la yàlla dolli wér. yàlla na yàlla dolli la wér sëkk. dolli la kattan. yàlla na yàlla dolli la kattan. dolli la sutura. yàlla na yàlla dolli la sutura. nun dey. nun dey. jaaxle wunu. jaaxle wunu. gëlëmunu. gëlëmunu. ñàkkunu. ñàkkunu. kan moo ñàkk. kan moo ñàkk. yow mii. yow Baye Serigne Abdourahim. yow Baye Assane. yow Baye Assane. yow Baye Modou Fall Niang. yow Baye Modou Fall Niang. dara. yéen a ñàkk seen mag yéen a ñàkk nun waaye nun bàyyi la nu amoon ay bàyyi la nu amoon. ak sëriñ ak sëriñ. te yéen a ngi moom ñaan ci yàlla ñoo lu yàlla musa may mam Ahmadou Ndack lu yàlla musa mam mu ñëw ba ci yow mu ñëw ba ci yow nii yàlla na la yàlla may yàlla na la yàlla may kattan ga kattan ga ak daraja ja ak daraja ja ak ak lijaaba ba ak ak sutura sa ak mat ga ak mat ga ak dal ga ak dal ak mottali ga ak na la ko yàlla yàlla sunu borom defal la ko askanu mam mam Ahmadou Ndack Seck wii du ko yan kenn ku ko wërte yàlla na la ko tey yàlla yan na la ko tey nag nun nag la ma waxoon léegi rek léegi. njaboot rek njaboot dong. la ñuy doon la ñuy doon. gouverneur nag. gouverneur nag ak préfet. ak préfet ak sous préfet ak sous préfet. ak maire ak maire. ak ndawi gouvernement bi yëpp ak bi yëpp. ak commandant brigade ak commandant brigade bi. ak kilifa yi fi teew yëpp. ak mboolem yi fi teew. ñoo leen di jaajëfal. ñoo ngi leen di jaajëfal. di leen leen di jaale. ñi ngi leen di sargal. ci bis nga xam ne ci bis bii nga xam ne. ndax jëfi yàlla yàlla nag yàlla nag ku mu jox. ku mu jox. bay jëlaat. bay jëlaat. boo goree. boo goree. nga xam li nga doon. nga xam li nga doon. te mat li nga doon. te mat li nga doon. sant rek ngay def sant dong ngay def. daraayu Baye Cheikh bi daraayu Baye Cheikh Ahmad Tidiane sant rek lañ ci def sant dong ciy def. ak gërëm ak gërëm rek. ndax jotaay baa ngi tey de. ndax jotaay baa ngi tey de. kenn xamul ku ciy topp. kenn xamul ci ñun ku ciy topp. as gor nag. as gor nag. day rek. day rek de. rek nag. rek nag. du tiim lu neex. du tiim lu di ci lekk ba sa biir fees. di ci lekk ba sa biir yar sa bopp. da ngay sa bopp. ba doo teggi mbedd. ba doo teggi fuppi kumbu bi dara dellu ca gannaaw nañu dellu ca ginnaaw te sédd kilifa yi te sédd wax de bëggee namp loo mën na fee ñàkk xat loo mën na fee bu fi yar amee bu fi ak i teggi ak i teggi ak sutura ak sutura kenn ku ne xam li nga sa morom ku nekk xam li ci sa lenn li di ku la de. lenn li ak yaradi ku la de. yàlla soxla yàlla moo jël te kenn xamul ku ci tem. kenn xamul ci ñun ku ci tem. kenn ku nekk. kenn ku nekk. togg ci sa jëm. na nga ci sa ak sa xel ak sa xel. ak sa xalaat ak sa xalaat. ak sa fit ak sa fit. nga ragal ci yàlla nga ragal ci yàlla. boo ci ragalee yàlla. boo ci ragalee yàlla. lépp dina baax lépp dina baax. ku wane lu dul yàlla. ku wane nag leneen lu dul yàlla. loo am loo am. di ko wéete di nga ko wéete de.